jot na Njombar Njombar ba dee na xoolal loolu njombar ma hee njombar la ñu andi njombar ma est deewul njombar ma dee na dee na face am na benn sengoor bu diggante Colifay jël na ko xoolal mu koy yóbbu sànni na ko kot suba eh Ada Fass Colifay tey lamb Ada Fass Colifay Ada Fass ba jóg na arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër moo ngi laaj ay siisam Ada Fass Coly Faye nee na coach bi toogal coach ba la ñuy xaar Ada Fass Coly Faye baa ngi laaj ay sixième dimanche nee na coach toogal laaj na Ada Fass na Coly Faye dimanche 26 juin il est 20h40 Coly Faye la ñu jàkkaar lool wala boog Ada Fass la lool Coly Faye moo ñu woon ginnaaw arbitre ba 6 juin à la phase qualifiée les 22 la teg à la droit la teg qualifiée à la ñoo ngi lewaatoo dañuy xeex xeex mënu cee ñàkk qualifiée même na léegi. Coly Faye Ada Fass dóor mu sëgg jël ko Coly Faye Ada dóor jàppante nañu jàppante nañ Coly Faye Ada Fass Coly Faye Ada Fass waat Coly Faye Ada Fass ñoo ngi lewaatoo Coly Faye léegi waaye doorul demul Ada Fass a ngi ne tekk di ko déglu Ada Fass dafa bëgg a loog moom Coly Faye Ada Fass Ada Fass à droite Coly Faye Ada Fass LP Events abit bàyyi leen ñu bëre Coly Faye ngi dox ci ko jàpp téq na ko mu bañ dañuy xeex Ada Fass taxawagul Ada Fass day jàpp baaxul mu daw génnaat Coly Faye daa bëgg xeex waaye Ada mayu ko loolu door na ko moom Coly Faye Coly Faye door na léegi Ada Fass ma ngay ba Coly Faye ngay seere lampataake ba Ada Fass dafa bëgg a bëre ak moom ci tànk Coly Faye Ada Fass Ada Fass day bëre ak moom ci tànk day jàpp loxo bëgg koo kal Coly Faye door na léegi waaye Ada Fass dooragul Coly Faye Ada Fass jël na tànk ba dóor na ko jël na ko Ada Fass mbot na Coly Faye Ada Fass daan na Coly Faye Ada Fass Ada Fass daan na Coly Faye Ada Fass daan na Coly Faye dafa jël tànk ba boo koy imposé mu mbot ko Ada Fass daan na Coly Faye Ada Fass daan na Coly Faye Ada Fass daan na Coly Faye Ada Fass daan na ko jël bu rëy oh. Ada Fass daan na Coly Faye oh. Ada Fass waay Ada Fass waay sëriñ